waaw man maa ngi tudd commandant Ali Cissé may commandé groupement des centres de secours numéro 2 maanaam région de Thiès ak Diourbel mën nañ wax ne di 22 heures 45 la ñuy wax ne am na lakk am na cantine ñuy lakk fële ci marché Ocass juróomi ñaari minutes après fekk na suñu première fourgon bi ñeekul si le terrain bi mu ñëwee gis na situation bi ak propagation bi ni mu gaawee automatiquement mooy mu demander renfort mu demandé renfort yeneen AG yi nekk ci secteur bi maanaam Diourbel yi ak Daaru Muxti mooy yooyu liñ gaaw a ñëw moo ñu may chance ñu teel a six bi ba teel ko fay mën nañ wax ne amoon nañ tuuti jafe-jafe te jafe-jafe toujours c'est la même chose maanaam marché yi doo ñëwee day xat pour ñu mën a accéder fii làkk bi di am heure bu ñëwee marché bala ñoo dugg rek dañuy ak jokkalante ay problème parce que nit ñi suñu wàccee ku nekk fi nga wàccoon fa ngay toog bàyyi say bagage ay pousse pousse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 yooñu ci dimbale ba bi pa teel nañ maitriser feu bi mais ñaari jafe-jafe yi daal moo ñu moo ñu gënoon soxal maanaam occupation anarchique maanaam marché yi ni muy xate pour ñu mën a dugg ci biir ndax mbedd bi fi oto yi war a jaar yëpp dañ fa teg ay table ak ay chaise ak ay brouette ak lu nekk fa nekk ba xaw a yéexal beneen bi mooy problème mu ndox ndax xam nga sapeur ndox lay am ndox la soxla pour fay lakk mais ndox bi bi ñëwee amul fi amutoon bouche li wër marché bépp amutoon fu ñu mën a wutee ndox dañ doon obligé di dem ba ñaari pneu di fa root waaye yàlla def na si jàmm daal kenn ko bëri na ndax bu doon benn wala ñaari kat rek bëri na ndax d'après le délégué marché bi ñu defee le point am na fanweer ak juróom cantine yu ak ñeent fukk étal mooy ay table ak yooyu yoo xam ne yàqu na ci loolu nag ñun bi ñu ñëwee pour fay lakk bi <clears throat> liñ indi woon ci mooy bëri na indi nañ ci juróomi fourgon maanaam juróomi oto yi nga xam ne ñooy fay lakk te matoon nañ 53 gradés sapeurs dont trois officiers pour mën a fay lakk